shekar ya ci kakar alkaula alkaula ke sashe gun Tew baay baax lu ñu xam nga jiite ñu ñes cey baay baax ñes maam baay baax ñes cey baay baax ñes lu ñu xam nga jiite ñu ñes cey baay baax ñes Allah Allah Allah Allah Allah cey baay baax ñes karshe ya alkaula alkaula ke sashe gudu